للمصطفى نويت ما يجدد sëñ bi ñoo ngi lay nuyu ci turu daayira yi nga xam ne nii ñoo teew fii tey ci sa kanam fas yéene di la siyaare di la jébal seen liggéey te di feddaliwaat seen kóolute ak seen yaakaar ak seen ngëm ak seenu taalibe ci yow mu di daayira bi nga xam ne nii mooy daayira Tuubaa bii daaru xuddoos ñu di ko euh, daayira sopp xaadim rasul mi nga xam ne nii mag ñi ak gone yi ñoo ko bokk ak daayira sëñ Tuuba Siise ak daayira mag ñu jigéen ñi nga xam ni nday soxna jaane moo leen jiite woon ca léegi soxna Busa Siise jiite leen ak daayira Tuuba Naba mooy ciise ak baylaa ak tay ak daayira kaloom ak kuure ak jaj sëñ am di siise jiite leen ak ku mel ni sëñ Moustapha Kane ca jàjji ak waa Kuure Kalom ak daayira Joor Njaay bi nga xam ni sëñ Moustapha Njaay ak sëñ Modou Njaay ñi ngi fi teewal fi sëñ Ceerno Njaay Joor ak daayira Usnul Maab mooy Tindóodi daayira Usnul Maab mooy daayira Tindóodi ak daayira Daaru Tansiil ak daayira eh, Looyeen ak dayre daayira yi nga xam ne nii dañoo bokk ak ñoom pas-pas te ñu ñëw ànd ak noonu ci seen siyaare bii mu di daayira sëñ Cheikh Mbacke bi nga xam ne nii waa wilaaya ñoo ko jiite ak daayira Ahibaayil Xadim bi nga xam ne ni soxna maam Boussa Mbacke ak sëñ Diop Moxtaar ñoo ko jiite section boobu mbooloo yaa ngi nii teew ak daayira fekk sëñ Mbàkke Madina Seex Loo teewal leen fi moo doon wax ak yow léegi ak daayira sëñ Max moo daan xariloo ak daayira sëñ Aliou Mbàkke ak daayira sëñ Ahmadou Mbàkke Tindóodi sëñ Ahmad Yang xaar teewal leen fi ak daayira ahi baay ahi baay waxoon naa ko mooy bi nga xam ne nii mooy bu seksoo Touba te sëñ soxna Mame Boussa ak sëñ Diop jiite ko ak daayira bi nga xam ne ni moo di waa kër sëñ Saliou Mbacke muy daayira Salikiin ak daayira sëñ Aliou Mbacke muy bu sëñ Cheikh Aliou sëñ Cheikh loo di magum sëñ sëñ kër sëñ Cheikh kër sëñ Aliou moo ko jiite ak daayira sëñ Xaadim Mbacke ak daayira sëñ Fallou Mbacke mu nga xam ne ni moo di caatum sëñ Mourou saa ak daayira sëñ Ahma bu Mbàkke mi nga xam ne nii mooy yilif daaru Xuddoos ak daayira bi nga xam ne ni mooy daayira daaru Njaay mooy daayira ay bàyyi Asan ak daayira waa kër sëñ Musayn ak daayira waa kër sëñ euh, Abdou Lahad ak daayira waa kër sëñ Musayn Baara daayira yooyu ñoo ñëw teew tey ànd ak daayira Dakar bi nga xam ne nii Mor moo leen fi teewal ak daayira Casamance bi nga xam ni sa njëmb moo leen teewal ñoom ñëpp yónnee nañ seeni i addiye ak daayira aafe te sëñ Modou Soxna jiite leen ñoo yónnee seen addiye tey jii fas yéenee teew fi sa kanam di la siyaare te di la delloo jukkal di la dellu joxaat seen bopp di la xamal ni lii nga xam ne nii sëñ Ibrahima Mbacke moo ko digaloon bind ci loxoom wax ni képp ku aju ci man na lay digal nga def daayira te ngeen maase ci këyit waa ngi fi ba léegi ñu soyeer ko kenn ku ne nga xam ne képp ko xam ne ne aju na ci sa yibra dafa digle woon ni képp ku ne ci dëkk bii daayira bu fee na nga na nga ca bopp boo nee ci bitim réew fu fa daayira Daaru Xudoos nekk wala daayira Sëñ Tuubaa nekk waaye bul ñàkk nekk ci daayira loolu la sa yibra digle woon ba léegi nag ñu ngi koy sàmm loolee nag mooy li nga xam ne nii moom lañ lay leeral tey jii tey nag di sant suñ bokki daayira yooyu malim ñoom ñëpp day ànd nañoo nun ci liggéey bii tey jëf jéeg wax jéeg lépp noo ko ànd muy li sëñ Cheikh Lo doon wax mooy li si bëgg-bëggu sëñ Moodu Saa nanga nu ñaanal ba nii nga xam ne nee nañ ci ànde nu sax ci te bañ cee jóg ndax kat mbir kat baax na waaye sax ga mooy li ëpp solo kon nag nanga nu ñaanal nu sax ci ndigal loolu noo nga lay sant nag di la gërëm ci taxawaay bi nga taxaw ci diine ak taxawaay bi nga taxaw ci kër sëñ Ibra gii tey lu digle woon di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ko bokkal muy gone yi muy mag ñi muy ñiinu bokkal daaru xudóos nun ñëpp day xamante nan te noo bokk lu nuy def noo bokk lu ñuy bëgg noo bokk lu ñuy bañ nanga nu ñaanal ba lool nu sax ci noo ngi ñaanal suñ gone yi ak sun jigéen ñi jàmbaar lañ lool ci liggéey liggéey bii ñu nu mujj a jox te sëñ Moussa Saliou jox nu ànd ko waa ahibal xadim ak dongo yi tërbe yi te fee ca asalem ak waa kër gi jëpp nit ñi doxee nañ ci lu kawe njot yéem nañ ñëpp suñ Moussa Saliou ci boppam de wax na ma ni mag bëgg naa ci bëgg naa ci ñi ko doon def tey na ngeen xam ni fu ngeen toll sa Cheikh sañ naa koo liggéeyloo waaye kuru sëñ Cheikh sañ ma koo liggéeyloo loola nag mooy ni nga xam ne ni moom la ñuy jottali mbooloo mi di leen ñaan lépp loo xam ni jóge na ci kilifa gu mu mën a doon jëm jaar ci yow jëm si ci nun noo ngi ñaan bu jógee rek lan ca war a def nan ko def ndax danaa leen xamal ni daayira bii kat daayira xidma sëñ Ibra kat daayiraam bii xidmaatu liggéeyal sëñ Tuubaa rek la ko tudde tayit nitam ñëpp day ci lool la leen nar narkat tayit lu ci gone tuut tuut wax naa yow ci lool kon nag loolu sëñ bi na nga nu ñaanal ba mu sax ndax xam na ne loolu rek kay jariñ ndax feenu jëm dara du fa jëm dara du fa jariñ kenn dara du liggéey sëñ Tuubaa ba mu gërëm la wala nga yëngu ci moom loolu moom nattabliwuñ ko tayit moo nu ko xamal kon nag loolu nag nu ñaanal ci narganti noo ngi noo ngi lay seeral sunuy can ci njabootu sëñ Ibra gii topp ci yow ndax kat jàppale nañ ndax wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne nun mënuñu ko waaye fu ñu fi war a teew te war ko ànd ak ñoom danañu ci dimbale àndal te loolu mooy li bëgg-bëggu sëñ Ibra waxoon na ma fii ni ma na ngeen ma jàppale sama ginnaaw ba lii nga xam ne nii sëñ mu saa wax na ma mu am ta loole nag ci yéen ñii rek la mën a am te loolu nag yëg naa ne nit ñaa ngi ci jàpp nag nu ñaanal bu baax a baax a baax ñaanal mbooloo mi bu baax a baax képp ku fi ñëw ku ne yal na na yàlla defal la nga bëgg daqal la la nga ragal ci barke sëñ Touba ak ci barke bis bii loolu mooy kàddu yi nga xam ne bàyyi ko woon na ci man di sant bu baax di gërëm di la bàyyi suñu bopp nag tey ak ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh riqaaba kullu man waalaani yaa man bi xidmati nabi wa alaani assalaamu aleykum wa mbokki taalibe yi fi teew ñu ngi sëriñ bi nee na mi ngi leen di di jiital ci bi daay def diiwaan bu mag bi bi nga xam ne moo làmb ñëpp nee na ngi sant bu baax di sant di leen sant bu baax ci seen taxawaay yu rafet yi nee mu ngi leen di nuyu lu baree bay nee na mi ngi nuyu tam yi aju ci ci njiital Sëriñ Touba Cissé ak ñi ci des ñëpp nee na mi ngi ñaan suñ borom nangul leen seen liggéey yi def yëpp nee mu tàmbalee ko ci fàttaliku Serigne Mor Seck moom nga xam ne moo fi ko. nee na ngi wax ñépp nañ ko ñaanal bu baax ndax nee na taxawaayam rafetoon na fi lool. nee na mi ngi ñaan suñu borom dimbali ko bu baax a baax daal di ko yërmande ak mbooleem képp ku fa fekk ku fa fekk. nee na ngi sant waa gi bu baax ci taxawaay yi nee bi mu tàmbalee ci mi ba léegi nee rawat na weer yu mujj nga xam ne soxla yi daa xaw gën a bari lool te nee na teewul lu ne doxee nañ ci lu kawe njortam nee na mi ngi ñaan suñu boroom nangul leen ko defal leen ko lu kawe seen njort ñu koy gën di man ba faaw ci barkab sëñ bi nee na ngi soññee bu baax a baax ci ndigalal sëriñ Tuubaa yi hmm. ak ah, bàyyi tere yi hmm. nee na dara génnu ci islaam nee ku ne xam na lu mu doon nee mooy ponk islaam yi rek waaw nee na te buñ koy def ñu boole ko Pastef ak sellal ndax nee na loolu mooy li am solo te nee mooy liy jariñ tam waaye nee tam ñu ngi ci sant bu baax itam waaye nag nee na nañ koy gën a saxar rek nee na te yaakaar sëñ bi defal nu rek nee ñu ngi sant bu baax a baax a baax na nee di ñaan weeru ñuy seen te mooy weeru koor gi sun borom may nu guñ ko mën a mànge te jariñu ca yiw ya tey nee na ñu jëfee ko na mu gën a rafete te ñaan tam ñu fekke ko ay ati ati at ñoom suñu kilifa yëpp ak mbokki taaliba yëpp nee na lépp ci barkab Sëriñ Tuubaa nee na tam moom li ñu bëgg a wax lépp moom nee na ci cant rek la tënku ak soññee rek nee waxtu bi nag dafa xat ba lenn li yaatal ci xaju fi waaye nee na ñu ngi gën a lool rek nee na gën di ñaan rek ci barke sëñ bi yàlla nañ ko teewaat déwén ak jàmm nee na kenn ku ne la mu yéene woon ko suñu borom defal ko ko na mu ko bëggee ci barkeb sëñ bi waaw jërëjëf sëñ bi mat na yàlla la fi yàlla yàggal ndax wax dëgg yàlla kuy dégle di jëf soo jëfut ne moom yaa yaafus jërëjëf sëñ bi bisimilah tàllal leen loxo yi Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatuhu al-xarra wa ahmadu للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإن يهمل للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمل يعينني على الصواب سمر بجاه خير